Thank you. ça c'est Youssou Ndour ñu seeti Ablaye Wade Macky Sall wax dëgg yàlla yónnee na ay sage pour ñu wax ak Ablaye Wade mais Ablaye Wade ndax nangu na war a nanguwul Ablaye Wade tamit wax dëgg yàlla bu la Macky Sall <laughs> wooyee ci waxtaan kay xoolal rek moo gën a rafet am déet gendarme yi jigéen yàlla yàlla defal lamin Lamine ku ma fi seet maa ngi nelaw budul ma di Kenya ak Omar Sarr ku ma demee na bu ma dikkee ñaa daal Adja Khoudia Woré Sarr ku mu mënti doon nekk moo fi demee na la dama sonn yow mi boo toogee di recevoir mel na yaay président te yow nekk toog yow li ngay recevoir sa Macky du ko recevoir kooku la kamara way si bite nga naa ma kamara so bàyyi buy nelaw duñ waaye génnal fii nga ma dangay soo bàyyi buy nelaw dina ko dangay fofe aca ci biti xanaa Lamine nekkul ci kër gi waaw kii dafa dof mooy tëdd mu naan day fofe rek c'est ça ku ma fi laaj maa ngi nelaw asalaamualeykum. waaleykum salaam. ñu ngi sant bu baax sant wa fay sekk sekk ah sek ngiraan la ngiraan ah waaw waaw bi may ñëw léegi ci bunt bi ñu ngi naan bu nga diggee monsieur Faye sekk nga fa waaw ngiraan la <laughs> ngiraan na ngeen def jàmm alhamdulilah ngiraan na def tabaarikàlla alhamdulilah nag ay saas lañ ñuy wooye saas mooy ay mag yoo xam ne dañoo nekk ci pale bi njiitu réew mi yebal ñu président Macky sàll pour ñu ñëw gisal ko Ablaye Wade waaw dañ ko soxla bëgg a waxtaan ak moom ñu ne ñu nañ ñëw daal mag ma ak sama rakk ji nag sëñ gi xam naa moom dina la gën a expliquer sax nga gën a comprendre waaw ni mu ko waxee rek waaw diggante lu mu joge joge doog defara ko président nag ku ne xam ne yéeneem ci bàyyam waaw mu yebal ñu nag waaye moom faaw ñu gis nag ki ñuy seet mën a développé yu bari yaatal ko waaw dafa tëddoon waaye xaar leen ma waxtu ni ko ay ma ko koy seet waaw waaw waaw waaw ñu xaar nii waaw waaw waaw waaw baax na waaw waaw ah. son excellence dafa ah. ñaari euh, ñaari góor góor yu mag yu lay seet ay mag waaw ay mag la ñu wax dëgg la fu Ibrahima waaw palpe leen ba pare parce que mënoo doon ay magum kàccoor palpe leen mu dugal leen. d'accord waaw mu ne mën ngeen a yegg si. Hmm. ah ñu waaw waaw léegi mën ngeen mais xaaral xaaral ah ñëwal nii ñëwal nii. waaw. ah déedéet lii doo ko tee ma ñëwal na. déedéet lii du dara papa kaay nii kaay ah, nii. ah fii de dara nga fi. <laughs> déedéet lii du dara mesure de sécurité la rek du dara. ah da ngeen def. da ngeen di xool ba xam yorul ngànnaay. waaw waaw xam nga fii waaw léegi de moom fépp la hôtel yeeg. dëkk bi dafa jax yi xool ba xam. nag war nañ koy wut ci làmb ji nag mbëri balaa ñuy jàppante ni ñu leen di raayee nii ñu koy kii salaamaaleykum wa rahmatullah suñu wàdd ngiraan la ngiraan waaw kazaalika ngiraan moo ne. ngiraan ngiraan lañ sant. toog leen. que ñi ñëw seet yëpp su ma xasee ba jàppante ne la ko yàq. mag moom mag rek la mën a jox ci. nekk président ci ba bàyyi te li ngay président bi fi nekk sax du ko recevoir loolu yàlla rek man la ak ku mu munti nag je reçois plus de san visites par bés di dimbali doomu aadama yi donc boo ma gisee ay mag yu ñëw te dama di lu woon seen tànk waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla mosu seytaane di wax ne ñun njiitu réew mi ñu yebal maître Abdoulaye Wade ñu ne dañoo war a ñëw tey seet si la sa doom sa gone mën mm-hmm. naa ne koo xam ne sa loxo bi ci la jaar mm-hmm. muy président Macky sàll le président de tous les sénégalais yabal ñu ne dañoo war a waxtaan ak yow ndax réew mi toll na foo xam ne mag mat naa ba ci réew na mag mu baax mu mel ni yow moo tax ma ànd ak sama rakk ji nga xam ne mooy ngi Ngiraan nga xam ne moo yor wàllu communication bi ci ñun mag ñi ma bàyyi ko moom mu développé nga gën a déglu daal li ñuy li ñuy am di waxtaan wi daal di ko di ko wund mooy li nga wax de la république ko yor ñu ne Abdoulaye Wade xam nga ne dañ ne ci yow ne ci moom seytaane nag yàgg na fi du fi jóg te kenn ku ci nekk ni ngay xëy di dàq saw soxla seytaane ngi lay daal pour yàqal la loolu nag lan xam moom xam ni rafetul xam ni yaay bàyyam di woy juróom yéeneem yépp di ci yow mu ne jug sama yéene sax dem na ba ci aéroport bee ca jas bu sottee mu tuddee ko mhm. loolu moom sama nopp ma ko may moom nit nag ku la yéenee jàmm yar la te àqu yar ku ne xam ne ni dafa am di ah magi fi mu ne mënta dem bala di daa kon nag bu demee ba am yéene ji wax nu ñun mënuñu lu dul jug ndax kat ñun magum defar lan bëgg a doon loolu nag lan ni woon nan la ko wax te xam na ni yow bañoo ko ndax ku ko yéene nga moo tax kon bu amee yéeneem ju rafet joo ca aéroport jas ñu dem ba dindi Diass danaan aéroport maître Abdoulaye Wade ah eh, eh, lii taraangala ah. looloo nuyu. loolu la wax te loolu sax mooy dëgg nag ndax lu la neex neex na ko lu la naqari naqari na ko mm-hmm. bu déggee ne yaa ngi ci jàmm. sa téléphone. laaj la ci loo nekk. sag njaboot da leen a bëgg. bëgg say doom. bëgg say sa sa sa lépp lu taq ci yow daal waaw. waaw. xam naa ne sa xol sedd na lool fi nii moom wax dëgg yàlla. man xaaral moom daal. sant alhamdulilah. waaye bëgg na jàmm. waaw waaw ndeysaan ndeysaan. li moom li may ree. dëgg yàlla mooy xamu leen ne. Mhm. bañ naa bu yàgg bañ naa ba ngeen waxee aéroport laa bañ maanaam dama ree damaa bañ ba pare. Ah. maanaam ba ngeen commencé wax laa laa bañ moo tax may ree. bañ naa waaw yooyu nga nekk ba tey wala. ni nga daan tooñee ah, ak waaw waaw moom de moom day day kaf wax li may dafa leer. boo leen demee ngeen ne Macky président Ablaye Wade nee na buggul nga tuddee ko aéroport. maara day taale. ñaareel bi buggul dialogue ak yow. xam nga loo ngeen xam. ngeen topp sama loxo bii bii ngeen topp ko de. ñibbi génn. boo leen demee ngeen ko. Wade buggul tey buggul ëllëg. te mbaxana bu maro bi di nuroog. chocolat marron bees bi ngeen génn ko ay ci biti boo leen demee nga ne ko bëgguma soxlawuma ko soxlawuma dialogue j'ai pas besoin de dialogue ay ca su ma xamoon ne lii ngeen di wax du ma du ma yàq samay melo a dégg que ce soit la dernière fois ngeen nii ñëw di wax ak man aéroport boo xam ne yaa ko tabax eh bien de de loolu de moo mën a neexalel de mu ngi nii centre international mu tuddee ko Abdou Diouf loolu day tax ma day bien ma ma wax ci loolu du yëngalu ma. jóg leen ngeen dem. dama ne eh leen. Ah, waaw dañoo ngi dem quoi. ayca. ah dama ngeen ne ko gis naa ko nee na bëggul mujj tey ngeen di ñëw di yàq samay nelaw. ayca. gaaw leen ayca qu'est-ce que vous faites là ngeen di dire ay loos ndax day. giraar giraar ma xam ne mi de yaa xam. Ah, ayca. na mu jug tey ngeen di ñëw sortez ay saa ay njëkk a maar ñoo. waaw ñoo ngi dem waaw kay. ñàkk ayca.